suñu ànd ak président Macky Sall définir naa ko léegi wax naa ko xam nga koo wax ne moom nga àndal déjà boo ko xasee ba wax amatuloo loo wax parce que ànd na ma ak nit lu mu bëgg ngay bëgg lu mu bañ ngay bañ donc moi je suis avec Macky Sall sans réserve te séenuwuma ci dara aussi maa ànd ak moom ndax sama wëllëri la dama ànd ak moom ndax sama rakk la dama ànd ak parce que gisuma ko fitane tane te il a bien beaucoup fait il a bien travaillé waaw lu fi Abdoulaye defoon rek wax dëgg yàlla yokk na ko wala mu def lu ko ëpp. kon ñun bu ñu gisee kuy liggéey pour le peuple dañuy àndandoo ak yow àndandoo ak yow pour suñu bopp mais dañu ànd ak yow pour nit ñu ñu àndal au moins ñu mën ci gis seen bopp. incha allah nous serons avec Benno Bokk Yaakaar dans toutes les localités nous allons demander à nos militants d'intégrer Benno Bokk Yaakaar et d'être sur les listes.